Tidiane Faye cokkaas na léegi ci stade bi waaw xool leen lii kenn mësul gis lii ñaari mbër yaa ngi ci diggi géew bi ñu jékki-jékki courant bu coupé na gis ngeen yéen a ko gisandoo xoolal tribune torche yi de mooy tàkk jox leen ma ndox ma naan mbaa ngeen lam les forces de l'ordre lañu war xoolal sécurité baa ngi noonu ci digg géew bi ñoo ngi sécuriser arbitre bi Kéwoulo ngi ci digg géew bi Tidiane Faye ngi ci digg géew bi Mbaye Diouf Kéwoulo naka la woon bëree parce que gis nañu mu am quatre avertissement Tidiane Faye di dox ci kawam est-ce que nii la war a bëree combat bi. waaw parce que xam nga pied droite ak pied gauche suñuy bëree pied gauche bi bu ëmbee pied droite bi pied droite bi du xeex su ko pied bi droite bi ëmbee tamit du xeex mais Keweul li mu war a def mooy mu ëmb waa ji di xeex gauche rek day jël coup yi far force parce que ndaama la mënu ko door crochet parce que dafa gàtt. te saa yoo ko ëmboo crochet boobu mënu la ko door mais tant que yéen a ngi bëre face à face soo benn mu ne la ñaar mënoo bañ. mais en tant ni mu amee carte lan la waroon bëree moom Keweul. mooy li ma la wax rek. xam nga adversaire bu mel ni tiijaan dafa yeewu dafa yeewu ci bépp côté soo bëreeg moom da ngay déglu ñi lay wax am na ñoo xam ne li ñu fi mu toll nii li may wax ni ñoom ñi entraîneur bi xamu ko te moom moo ko yore te pourtant fi mu ne nii man bëgg naa jot ci moom mais mënu ma jot ci moom. loolu la rek kon combat bi entraîneur yi ko waroon jeexal. entraîneur bi sax mënu ko jeexal parce que xamul li mu war a bëre. ñoo ko gisandoo mbokk yi. courant bee coupé stade baa ngi ni gis ngeen léegi <laughs> li jibi nee na courant bi coupé wul stade bi amul courant groupe la ñuy taal essence bi dafa jeex <laughs> essence bee jeex gis ngeen supporter yaa ngay ñibbi amateur yaa ngi génn di ñibbi. jibi bu Kewel Info jibi noo noo noo noo noo jàngatee lii ñu toog di di ci grand combat bi ba ci biir lamp yi fay. Franc sooko nii la demee woon. ay 16h 16h la courant coupé fii stade Franc Sokh. lii moo nekkul yoon Ousin président Bira Sène mais moo ngi gisal na ko boppam. déggoo Franc Sokh la demee woon. groupe la taal lii c'est pas normal nañu war a dëgg fii groupe mënu fee tenir. essence bi ñu koy jënd chaque jour xanaa kon bu yàggee promoteurs ñoom dañuy dee dañuy bàyyi lamb essence dañu mën a dëgg gis nga fii nañ indi courant bi ñu delluwaat affaire yi chinois yi moo gën sénégalais mënul yor dara lu mu day yàqu. gis ngeen ñoo ko gisandoo wala boog ñoo ko déggandoo kéw léegi noonu ci diggi géew bi waa daa mel ni xoolal projecteur yaa ngay tàkk ma ngay ñëw ndànk-ndànk ma ngay ñëw ndànk-ndànk. courant baa ngay courant ba ngay tàkk ndànk eh, ndànk. Kewel Tidiane Faye. lamp yi fayaat na lamp yaa ngay fayaat. que la courant yaa ngi nii di taal xoolal kër yi kër yaa ngi am courant. Euh, kër yi boo gisee courant la mais est ce que bu toll nii war nañ koo utiliser di taal ay groupe moo nekkul yoon Ousseyn du yoon stade bi waruñu fa def ay groupe lii courant la waroon doon. moo ngay tàkk ak a fay. li muy tàkkee essence lay jël Ousseyn ñun mënuñoo jël essence boobu dañu war a dëgg. fi essence toll ni mu yokkee. waaw bi fi mu tol dëkk bi ngay wax de dëkk bi. France soq nii la demee woon France Kewel Tidiane Faye demee nii. jox ko Ousseyn. xaw a jaaxal parce que ak xam nga dañ daan dem stade Iba Mar fa dem Demba Diop jóge fa dem ak fee Léopold Sédar Senghor ñu defal ni bisu bu nii ñëpp naan stade bi ñoo ko moom stade bi suñu stade la mais mënuñu am courant bu doy franc soxu ñu ñëw ba fii courant bi coupé gis nga moo ngi leer ndànk-ndànk moo ngi ñëw ndànk-ndànk xam nga lii. lii dafa muslu. gàcce la. bilaa yow. Keweul Tidiane Faye Tidiane Faye demee na wet bi latéral latéral Tidiane dafa bëgg jeexal làmb de Adama est-ce que xam ngeen Tidiane daa parce que xam na ne kii di Keweul moo ci bu bëre rek moom mu génn cinquième avertissement day am làmb ja jeex moo tax abi sifflé mu daw ba ca mu daw ba ca saako ya taxaw foofu Tidiane Faye daal fi mu doon expérience Tidiane Faye la bëgg a bëri Kewel Tidiane Faye ci 3 avertissement Kewel a ngi ci 4 avertissement Kewel Tidiane Faye stratégie la stratégie la Kewel bëgg wala boog Tidiane Faye bëgg a lamp yaa ngay benn bennal de bu leen fay ñoo fay lamp yaa ngay fay abit atana Tidiane Faye kewel dem nañ ca saako ya kewel Tidiane Faye ñoo ngay leewaat ñoom ñaar. ñoom ñaar ku ci nekk am nga carte avertissement. Eva naa la maa ngi stade. Kewel Tidiane Faye. Kewel Tidiane Faye. Keweul cookaas saat na léegi. Keweul Tidiane Faye ba du ngeen lii lee ñaar. ndeysaan damay xaar ba lamb ji jeex ma wax leen la ma waxoon barke Serigne Bamba samay waxal arbitre àtte waat temps ba jeex na temps ba jeex na mi-temps yi traditionnel la leen may. bien. vaccinil kon. temps bi mi-temps Tidiane a ngi koy jéem wër. ñëwaat mi wër. na ko. lu ñuy bëree nii. Kewel Tidiane Faye Kewel Tidiane Faye Kewel Tidiane Faye ngay naanaan mais loolu du làmb Tidiane Tidiane Faye Kewel. Tidiane Faye waaye après kii bu ma grand combat bi ma am na carte avertissement Kewel am na carte avertissement ku ci am benn lamb ji jeex.

match nul loolu disqualifié.